nuyu na leen jaare na leen di leen balaax di leen balaax ci weeru koor bi waaw di ñëw nag di joxe sama commentaire ci filmu Matrice parce que boobu léegi mm, Racky mbëggeel mi ngi nëbbu ci Moustapha mais tey feeñal na ko xam nga bëggeel moom soo ko nëbbee mu feeñal boppam mais tey feeñal na ko euh, deuxième point mooy Dior dafa attention ci biram ah dina ko dina ko yóbbu ko parce que joor am biram du ko intéressé te biram dafa ñëw pour jaar ci kawam jàll biram li ko rakki def loolu la bëgg a fay ci joor te joor xam lool joor moom jàpp na ne biram dafa ñëw pour soutenir ko daal ci lim nekk waaw métti Mariam tey ni mu réagir waru parce que wata taxaw di xas di parce que Cheikh dafa sacrifié boppam sacrifié ngir moom ak lu mën demee rek war na ko mën a gérer daal soutenir ko boole li ko neex li ko neex lépp gérer sëy bi mais laalatin wujje jëru muy dof dof wujje jëru ko daal parce que góor gu ne am nga droit takk quatre femmes suba na moom nag damay bàyyi dof dof kii. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi Eh, maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen wax eh, seen émission kii bi maanaam seen théâtre bi neex na trop waa neex na trop ah man daal moom rek laay seetaan ins bi ma nekk macha allah moom rek laay seetaan moo tax may déplacé dem jëndi crédit bëgguma koo tardu fenn daal waaye bon man ci sama xalaat mooy eh, jox moom dafa ëppale waaw dafa ëppale trop parce que. àdduna tey eh, xarit yi yombul quoi soo amee xarit e waroo koo jàmb ko ci joor xelam bu gàtt moo ko nar a sonal quoi incha allah man de moom kenn du ko wax parce que biroom soo xoolee biroom day dof doful quoi waaw mais doful loolu de mooy problème waaw mais du joor moo ko mën a gérer ko parce que joor am na problème bopp problème birom man loolu moo ci sama gis ki am mais affaire bi théâtre bi moom macha allah neex na ma trop trop sax. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare euh, di leen jox seen wàccuwaay. di leen lu bëri si barke weeru koor gi di wax ni euh, am na lu ndaw rek lu ma bëgg a wax si la maîtresse d'une femme mariée xaw ma d'un homme marié donc euh, épisode bu bu am solo pour man parce que dama gis ñaari relation yu ma si yu ma si neex euh, Jalika sérieusement man damay rêve am jabar ju mel na comme moom damay rêvé am jabar ju mel ko moom c'est parce que man mii di waxante yow euh, jaar naa si am jabar divorcé mais sérieusement jëlika wax dëgg yàlla su may am jabar yal naa am jabar ju mel comme moom parce que aussi tamit jigéen bu mel ni Jalika yombulan ah, te xam naa ne aussi tamit rôle bi muy joué nii bi muy joué nii naturellement noonu la parce que ku ko xool rek xam ni naturellement aussi noonu la mel donc euh, aussi tamit may wax si Euh, Racky ak euh, copain boobu hmm? déjà tey laa seetaan benn épisode bi sax euh, mu ni xamal ko mu xamal ni copain bi ni ko moom daf ko nopp mooy wax ni jigéen dafa rëy jigéen dafa rëy surtout jigéen bu tàmm relation aussi dem benn jigéen dafa la Racky ku xool ak gaynde boobu Tafa xam ni man sérieusement xamoon naa ni fur et à mesure rek dañ ko wax nekk daf ko nopp donc aussi tamit may ma leen di remercier si théâtre bi hmm. am na solo trop euh, man nag benn waay laa maa ngi dëkkee Dagana mais série bi intéresse na ma trop te xam naa aussi mu intéresse na keneen ok ma ngi nekk leen si jàmm yal na leen yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit merci beaucoup. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee maa ngi rafetlu say kàddu ci film bi ci série bi maa ngi rafetlu sa kàddu bu baax a baax a baax a baax a baax di nga yow itam yaa ngi def lu am solo lu solo waaye gis naa ne ñoom seen film bi am na solo trop trop trop trop trop mais li comme li nga wax noonu ci seet taxaw seetlu ci diggante eh, ñoom ñaar seen du xarit du du jàppalante. sey mën na ci am man gis naa ñaar sëy mën na ci am ndax kii def na ko damaray doom kii damaa rey baay léegi kii di forcé na kii di forcé na léegi seen diggante ñoom ñaar pour sër bi gën a neex ñoom ñaar dañoo war a sey après tamit Jalika tamit c'est normal tamit mu benn jëkkër waaw man daal loolu laa gis si film xarit la man daal gis naa ne seen jàppalante lalu ko gis naa ne daal ndaw si moo gën a moo gën a bëgg comme comme waaj comme sa waaj comme sa waaj comme waaj mais ñu ngi lay siyaat di la bëggee loolu lañ ci gis ko. ok maa di leen sant di leen gërëm seen émission bi baax na rafet na waaw am na importance. di leen nuyu ci weeru koor gi di leen jaajëfal ci weeru koor gi bu baaxa baaxa waaw c'est vrai meer bi lumu wax la lumu wax Marème dëgg la kay parce que nit boo nekkee ak sa waajur am na yeneen lu xamante boo ko bëggee def doo ko def parce que sa waajur yi ñoom ñooy tax ba doo ko def parce que dañ lay conseil wax la ay wax yu neex waxtaan ak yow fa ngay dugg lañu lay wax ci sey bu bees ngay dugg waaw te lu am ki lu mu am ni lan la lu mu am ni ci moom la jógee ci bu nekkee ak waajuram dinañ ko wax lool waaw bien vrai que seex lu mu def nii lan la moom mu tax mu def ko mais moom warul topp xolam. warul topp xolam dafa waroon a xaar mu xalaat nit booy def dara dangay toog xalaat bu baax mais lan la lu mu ko wax rek lu mu ko wax ni mu jeg-jeg rek mu dem takk marem waxtaan su ak lal la ak loolu baaxul daal waa rakki tamit si rakki tamit rakki moom tamit moo ko gisee daf may nuroo comme paa bi mooy papam daal loolu la may nuroo comme paa bi daal mooy papam parce que moom paa bi nu mel nii keroog di ko xool foofu ci seen liggéeykaay rek di ko dimbali wow encore muy dem toog ci bunt kër ñëw wet bunt kër ñëw rek daf may nuroo moom moo yu rek ak nu muy xoolee rek. loolu lamay nduru daal waa di ñëwaat si kaw Racky Racky yaam ni muy dundee moom ci kër gi métti na trop trop ni muy dundee ci kër gi métti na trop man na dama jàpp ne paa boobu toog si buntu kër gi man may papaam loolu laa jàpp ñun nag bëgg nañuy xam moom fan la nekkoon lan moo taxoon mu dina ñëw nag xam naa ci kanam bu ñëwee ñu commentaire si waaye loolu daal yàkkamti nañ ko mu ñëw trop série bi daal moom neex nañu ñu ngi koy dund ñu ngi koy bëgg ñun waa Sénégal yëpp ndax moom neex nañu trop saalum saalum yéeg ñëpp koy dund ñëpp a koy def dëgg yàlla def ndaxte dafa nekk dund nu Sénégal waaw te série bi dafa am sens trop dafa am solo ndax mën nga siy gisee njàngat lu la yeey mën nga see gisee njàngat lu tax nga looloon def nga bàyyi ko kon daal ñu ngi koy dund bu baax a baax a baax dana rek jàppal sa waa ji mu dëgër boo ko jàppul xale jigéen dañ koy nangu de nga nekk fii di sag-sag lu yow yaa gën a bëgg kuy bëgg jàppal bu dëgër nga takk mu takk ak nga sëy te nga bàyyil ma sa yaay bàyyil ma mère boobu waaye nag yaay moom li ñu wax ne nen la yow doj nga bu tojee bu dalee yow yaay nen moom mooy doj bu tojee sa kaw nga daanu boo dalee si kawam mu toj bu dalee si kaw nga toj boo dalee si kawam mu toj kon nag jàpp ko ak lu métti métti ak lu manta mel rek jàpp ko te xam ne way jur moom way jur la bu ko xeeb te tontu yi nga koy tontu nga bàyyi ko dee ko bàyyi muy wax rek te yow nga xam li nga xam ah, man daal loolu laa lay conseil daal di kontaan trop ci série bi man daal série bi neex na ma trop moom biroom moom bu leen ko wax waxam biroom moom nañ ko bàyyi noonu ko côté waaw biroom moom bàyyi leen ko noonu côté moom buñ wax sa waxam te mu delloo doomu jàmbur bi asalaamaaleykum maa ngi lu bari di leen ziare di commenter série bi rek di njëkkee ci Lalla Lalla de wax dëgg yàlla royukaay la woon waaye léegi moom dootul royukaay ndax daa yàq wéyam ndaxte jigéen ñu bari dañ jëloon ci moom royukaay ndaxte ni mu toppee woon jëkkëram mu ngi xam ne jëkkëram mu ngi mbaraan mu ngi doxaan mu topp ko te indilu ko benn problème lépp lu war ci diggante moom moom ci kër gi mu ngi koy def kon loolu rek woy bu rafet la woon mu dem ba ci biir mu takk mu yàq ko man nag su ma noon moom la dama koy continuer gën koo dooleel ba nga xam ne euh, su ñëwee tam dama koy uuf ni comme sama rakk waaw ndaxte euh, adduna bi moom loolu moo fi nekk euh, wujjee moom du dara lu may bokk wërsëg rek la ñaan ñu yàlla boole la jigéen ñi bari nañ bari goo xam ne bu góor ñi takkul ñett ba ñeent yaakaaruma jigéen ñi jax de bu ñu takkee sax du tax mu jeex waxantuma laa bu ñu takkut kon nag nañ may jigéen ñi góor ñi doole ñu takk ànd ci kër te bu ñëwee nañ yaatal yow mi ñëw tam boo ñëwee nga xam ne ki nga fekk si moo la fi njëkk nga jox ko cër mais moom man duma ko wax dara ndax damay jàpp ne bëgg-bëggam na topp bëgg-bëggam na topp waaye moom tam dañ ko gis ne yaayam ñaari yoon la génn ci film bi yëpp ñaari yoon la ci génn ba pare teg ci ci appartement la nekk dëgg la mu ngi nekk xaritam xaritam bu baax waaye nag Euh, jege say jur ak jege sa mbokk dafa baax ndax nit waroo sori say jur lii yëpp sori mbokk rek moo ko waral ndax bu amoon koo xam ne mbokkam la lii yëpp du ko ci du ci dugg ndax balam ci dugg dina ko xool kon nag dañ bëgg euh, série bi wax dëgg yàlla moom ah neex nañu torop ñun ñun moom neex nañu torop torop ndaxte boo xoolee ba génnee bees bu njëkk ba lu nekk ni ñu wax nañ ko ci baaxul day yàq li ñuy def jaaduwul dëppoo ak li Sénégalais yi di dund waaye liñ ci joué yëpp lu Sénégalais yi di dund la ndax li Sénégalais yi moo ko ñoo koy dund da gis góor goo xam ne jabaram da koy toppatoo ci kër gi manqué wu dara bu génnee di ñàkkal fayda boppam ci mbedd mi ku nekk sañ lay takk waaye yenn doxaan yi ak yenn dil yi ak yenn yi ngeen jégal ma ci kàddu yi loolu dañ ko war a xoolaat bu baax a baax a baax ndaxte wax dëgg yàlla senegal moom ah mu ngi dox de waaye nag ni muy doxee dëgg yàlla ku ne xam na ko dëgg yàlla man moom Lalla moom dëgg yàlla man jëloon naa ko idole waaye instant bi moom wàcce naa ko waaw ndax Lalla moom moom macha allah moom waaw dëgg yàlla.